assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh entertainment yusin football tv nuy na len bu baax baax den wax ngeen dal jamm ci chaîne bi le kep ko xamantene da nga bes bul xaar abonel clickal ci cloche bobu ngay gis do bu duggal nga kan man ko setan bul fatte tim une vidéo c'est très important don nañ lañ ko don wax ci semaine bi yeb den wax ne ku maytul ismaila jacobs mu signé monaco tay la officiel lundi suñu boy bi mo ngi joge fele allemagne cologne ñu formé ko foofu mu wane boppam foofu talaam boo gisee ñaari at yi mujj Ismail Jokko dafa nekk si benn yoon bu baax a baax a baax ba waa Allemagne si seen espoir ñu convoqué ko wala fii ci réew mu nag si réseaux sociaux yi juróon na débat ñu bëri gis nañ ne am na talent bi am na mën-mën bi pour mën a ñëw équipe nationale du Sénégal titulaire ndax ku xam Monaco jamono bi ñaari latéral gauche ñoo fa nekk Enrique benn brésilien ak suñu beneen gaynde Fodé Ballo-Touré donc waa Monaco bu ñu demee ba jëndee Ismail Jacobs je pense ñëw nañ pour def ko doublure lu ñëw pour def ko titulaire international allemand la moom nag Ismail Jacobs ci ay kàddoom waxoon nañu dafa bëgg jouer Sénégal defal naa leen si ay vidéo yu bëri yu xamante ne wax naa leen si Ismail Jacobs mu ñëw benn championnat bu xamante ne amul espace comme nii Bundesliga mel Bundesliga moo gën a am espace boo technique nekk euh, joueur bu xam ne nga wane sa bu baax baax côté Ligue 1 française moo gën a physique duel yi fa la gën a ëppee donc dinañu xool aspect physique aspect défensif boobu ndax euh, Ismaël Jakobs am na lu mu ci mën bu fekkee côté offensif boo liiree sax euh, taskatu xibaar yi nekk fële ci euh, Allemagne dañ lay wax ne mën na nekk un ailier donc pour vous dire que ñoom dañoo gis aspect offensif bu baax a baax si Ismaël Jakobs si ay match yu mag naa contre Dortmund contre Bayern Munich contre Leverkusen booy bi dafa doon wane boppam baax baax moo tax boo liiree taskatu xibaar yi nekk fële ci Allemagne loolu lañ lay wax donc bu fekkee am na fu ñu may progressé c'est juste côté défensif te gis nañ ne at bii mujj nii progressé na ci bu baax a baax du côté de Ligue 1 comme ni mu leen ko waxee moo gën physique duel yi fële ëppee mais Ismaël Diacko 21 ans rek la am xam nga benn masse de progression bu doy waar la am dinañu permettre ñun tamit sénégalais ñu gën ko gis ndax Ligue 1 aussi tamit comme que sénégalais yi fële la ñu ëppee ay ñoom Krépin Diatta la équipe match Monaco di nga ko seetaan bu baax a baax di nga gën xam le profil Ismaël Diacko ba tax na mbokk yi ci commentaires. yi dama leen laaj seen xalaat ak seen gis-gis ndax jàpp ngeen ne Ismaila Diacko mën na imposer boppam au niveau de Monaco di titulaire wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis